jërëjëf ki la di euh, maître El Hadj Ousseynou euh, Diouf euh, kon ñoom nag ñu daal di leen mujjee rëkkale ci li nga xam ni moom mooy ci état bu parrainage yi kon mi ngi noonu ki nga xam ni nag moo nekk mandataire ki la di Rose Wardini ñoom jàll nañu li nga xam ni moom moo di. waxoon dëmb sax daanaka dafa mel ni ci foofu la taxaw ba tey. par rapport ak li nga xam ne mooy fichier électoral caméraman yi waaw xanaa ñu bon déplacement yeeg waaw ma ne xanaa ñu euh, dafa mel ni li mu waxoon dëmb rek ci la taxaw par rapport ak li nga xam ne mooy fichier électoral bi moom waxoon na benn yoon euh, du ñu ŋàññ li nga xam ne moo jëm ci fichier électoral bi Euh, waaye jàpp na ni jeu bi nga xam ne euh, ñoom ñëpp d'accord oon dugg ci balaa résultat yi di commencer génn mënuñu ñëw ba toll fi nga xam ne moom mooy résultat yi war a génn ci conseil constitutionnel nga jàpp ni li nga xam ne mooy fichier électoral bi di nga ko ŋàññi tey ji nii donc euh, yaakaar naa ni ki nga xam ne mooy Malou ñëw na Idrissa a jàll na. jàll na validé na 45 euh, comme mën nañ jàpp ne euh, ci deuxième tour bi nga xam ne andi woon nañ ko fi moom Idrissa Seck bokk na ci candidat yi dem à l'élection présidentielle. Ngoné ndam dafa neex parce que déjà balaa ki nga xam ne mooy mandataire bi di génn. dañu gis ni ñi àndoon ñi ànd ak mandataire bi ñoom ñoo nekk di jubilé ci biti fii. Mhm. contrairement ak ñi nga xam ne Euh, mën naa wax ni euh, jël nañu temps balaa ñuy ñëw wax ak ñi nga xam ne. waaw tiit leen jàppoon rek xam nga euh, boo tiitee moom dooy fekk ne doo doo mën a wax waaye gis nga bi nga xamee ne yëg nañu ne seen candidat daal dinay jàll ñoom ñëpp ñoo commencé jubilé donc ñu xaare ne en attendant le mandataire il va venir faire une déclaration daal di koy déglu. voilà loolu mooy jàngat bi nga xam ne moom lañ ci def ndax gis nañu ki nga xam ne moom mooy mandataire bi mandataire Rose Wardini tam daanaka moom bi mu génnee juste dafa jublu. ñi nga xam ne ñoom ñooy taskati xibaar yi mais nag mais nag mandataire euh, Me El Hadji Diouf bi lañ ko waxooloon la fois passée ni ko da ngaa daw presse bi ko <laughs> parce que euh, saa su bu ñu ñëwee jàkkaarloog presse bi dina dina ko rectifier mais bon en tout cas lu ci mën tam keroog gisuñu ko woon euh, mook yeneen i moom du woon moom kese euh, parce que saa su ne amoon nañu suñu ay ndaw yoo xam ne ñu ngi leen taxawaloon fële pour que ñuy woo mandataires yi ñëw mais am na ñoo xam dañ doon gën euh, faire du yoon mais ak lu ci mën ci am rectifier na ko nee na dawuñu woon kon nañu jàpp loolu rek mënuma jàpp ni rectification la ndax tey ji nii kenn waxu ko fu taskati xibaar yi taxaw moom moo jël démb tam démb tam kenn waxu ko fu euh, taskatu xibaar yi taxaw donc bu ñu ñëwee première jour daal di dugg seen oto génn lu ñuy mën a wax mooy parce que képp ku fiy dugg da ngay jàkkaarloo ak caméraman yi da ngay même bu fekkee ni disoo euh, fi mbooloo mais da ngay gis caméra yi donc mënoo dugg conseil bi génn ñibbi nga ne gisoo fi nga xam ne fa la taskati xibaar yi taxaw donc loolu da di message bi nga xam ne duñ ci am moom moo war a nekk waaw mu ngi ñëw ñu xaal ko parce que moom euh, validé na li nga xam ne moo di état bu parrainage moom Idrissa Seck euh, ñu ñu xaar euh, son mandataire mu ñëw daal di jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi jot na validé li nga xam ne mooy parrainage bi ñu ko laaj xanaa mu ñëw def li nga xam ne moom moo jëm ci déclaration en attendant en ñu xool waaw ndax équipe baa ngi noonu Idy 2024 nañu bàyyi mandataire bi ñëw egg si ñëw mën a wax ak ñun merci beaucoup ci baax <clears throat> Alsan oui ça dépend de c'est bien Khalil je m'appelle As Babacar Gueye je suis le mandataire du candidat Idrissa Seck et je suis accompagné par monsieur Alassane Ndiaye qui est l'informaticien du président Idriss et qui est l'informaticien aussi de la coalition IDI 2024. Vous venez Voilà, donc Alhamdulillah Rabbil Alamina. Au premier tour, on avait des doublons à compléter, mais nous savions peut-être que c'est ce qui nous attendait. Les militants, les citoyens, les Sénégalais avaient beaucoup de difficultés, mais nous qui étions, dans le travail, nous savions que Dieu peut venir à notre aide. Parce qu'en vérité, ce, ce, ce, ce parrainage-là, il y a beaucoup d'inconnus. C'est très aléatoire. Il faut, pas, on, il faut féliciter tout le monde, même ceux-là qui ne sont pas passés. Parce que la machine qui contrôle le logiciel, on ne le maîtrise pas. On ne sait pas sur quel fichier il travaille. Et aussi la position du candidat joue de façon formidable, de façon vraiment très claire dans tout ça. Euh, Nous remercions le président Idriss Seck à placer sa confiance en nous, en nous deux, depuis plusieurs, plus de dix années et que nous félicitons aussi euh, la délégation régionale parrainage avec ses 14 euh, délégués régionaux, euh, nationaux, avec ses 14 délégués régionaux, ses 46 délégués départementaux et ses 553 délégués départementaux. Vous savez, le Réumi, je ne parle même pas de la délégation, de, de la coalition, le Réumi a un appareil Notre parrainage, nous l'avons réussi en moins d'un mois. Et nos fiches nous proviennent de 417 communes différentes du Sénégal. Vous avez validé 400, au total 45 000 et poussières. Nous sommes passés largement au-delà de, au Donc, on aussi nos chères mamans vraiment à pour nous. Adja Maguette Fall et Adja Fambeguei. C'est important ce jour-là de parler d'elles yàlla nañu fi yàgg tiwér vous avez combien de doublons externes on n'a même pas regardé on fait le cumul c'est pas important on avait on avait 8600 on dans notre dans notre second travail là où on avait 11000 non identifiés dans le fichier pour notre premier euh, euh dépôt pour cette fois-ci on en a 4 on a 4 ou 5 n'est-ce pas on a je pense 4 ou 5 Et cela nous a permis, donc on a je pense autour de 1000 doublons, hein, 1200, 1300 doublons je pense, sur les 8000. C'est pourquoi nous sommes largement au-dessus de 44 000, nous sommes après 45 000. Nous avons, nous avons validé euh, vraiment les régions et nous avons dépassé le cap. Donc alhamdoulilah. Euh, euh, euh, waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ni maa ngi ànd ak Alassane Ndiaye bi nga xam mooy informaticien bi di sant yàlla bu baax a baax di sant suñuy waajur aussi c'est très important malgré nos âges on a la chance d'avoir eh, nekk ak suñu yaay yi ba tey donc muy xéewal ñu ñuy ñaanal baax a baax a baax muy Adja Famba Gueye Adja Maguette Maguette Maguette Fall ñu ci gën a sonn donc ñoom ñu ci gënoon yërëm donc ñu ngi remercier président sa Seck amoon nañu tolof tolof bu njëkk bi parce que en vérité parrainage bi def nañ ci jaloo génn nañ ci mais li ñu war a reconnaître ñu jàll ak ñu jàllul mooy fichier bi ñuy liggéeye kenn xamu ko logiciel bi ñu bi ñuy liggéey kenn xamu ko ça ne doit pas être un jeu de cache-cache moi je suis professeur laa jàngalekat booy jàngal say élèves di leen jox ay devoir mais da ngay fexe ñu bëri am ci moyenne mais wooy joxe devoir wooy euh, la moitié de la classe n'a pas la moyenne du loolu ça doit être un 4231 jàllale nañu 45000 et poussière valide nañu juróom-ñaari région donc alhamdulilah rabbil alamina sant le président Idrissa Seck massa wu nag surtout benn mouvement bi nga xam ni bi ñu amee difficulté dafa taxaw de façon spontanée tuddee seen bopp PEPSI muy pas d'élection présidentielle sans le président Idriss Seck maanaam pré te xamuñu leen diaspora et autres et en trois jours ñu envoyé ñu presque cinquante mille parrains yu bees donc ñooñu citoyens yooyu nga xam ne du waa parti réew mi dans la diaspora ñu imaginer ñu dem élection ci Sénégal te vraiment Messi bokkul le numéro 30 yàlla def na ko nag Messi bokk na. As Babacar Gueye laa tudd voilà vraiment nekk mandataire As Babacar Gueye nekk mandataire